dof bi mooy ya kan sax. man Bougane Gueye. Ya ku la ya yóbbu woon kaso. bàyyi soo gi. ku la booleeg moom. yéen ñii. mais yow fu ñu fekk yaa ngi saak. xaaral nga gisoon lii. man sama saak bi waaw pare naa ko yàgg na pour dem kaso. Hmm. du dëgg. kon daal Sonko def na la xewal. Ousmane Sonko dafa ma koy yombalal rek. ñun suñu yoon newu ci. mais sa premier jour noo fanaane. méttiitu xol. yaa xam. Bougane bi la moo ko dal réellement. matadi. waana waa opposition bi gisuma leen dégguma leen. dégguma leen de. du leen génn ngeen taal pëna. wax leen sa kaw ba di leen dégg. fii daal yi fi nekk amuñu fit. ay li may bañ rek mooy làq dóor doom doom. làq doom dóor doom. làq dóor doom doom. làq doom dóor doom. laq dóor dom. doom nit moom boo xamul li ngay wax booyee boo noppil instant bi Sénégal benn problème la am mooy bor bi xaalis bi ñu waroon liggéey ci 2024 bi xaalis boobu nee na mais soo la ma tax a dàqal classement coupe d'Afrique beeg loolu kese ak yeneen ak yeneen lépp yéeg nañ ko nañ jox équipe bi ko su di nga jël mënoo sax course at jaar baxal naa la ku fi dàq way wooyu xaar bay ma jaaga ñu jox la équipe bi saaro yàlla ne saaro